ban appréciation ngay am ci ci waaw suñ suñ suñu xel day gën a dal ci posture bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko tey ginnaaw bi nga xam ne le président Ousmane Sonko génn na wax ak ñoom démb ndax dafa am loo xam te ni daf ñuy gën a renseigner ci jox nopp gi nga xam ne askanu Sénégal euh, jox nañ nopp le président Ousmane Sonko parce que ku toll ni Macky Sall ñu ne la yaa jiite réew te yow sooy génn duñ la déglu soo diglee nit ñi duñ def mooy que liñ ko yàgg wax ne ko dans ce pays là tu es le tu es une minorité donc majorité bi tey ah diggante démb ak tey yàlla am na lu mu ci feeñal te mooy lan un opposant koo xamante ni yaa ngi bokk ci kujje gi yow la askanu Sénégal gën a jox nopp ki nga xam ni moo leen jiite donc loolu ku mu doyul gisatuma lu la mën doy te nag loolu day ñaga seen xol loolu du lu leen neex ndax ñoom suñu sañoon ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko lëkkaloo gi nga xam ni moom la lëkkaloo askanu Sénégal ñu am eh, joxante maanaam dégloonte Euh, joxante nopp loolu noonu du leen neex mais loolu mënuñu ci dara ndax lu ko yàlla defal la mooy li muy wax démb koo xamante ni tey jii su nee fu mu dugg nit ñi feeñal cofeel ci moom ba parfois duñ mën a ànd ak seeni sogo loolu mbiru yàlla la donc ñoom nag ñu leen di wax ni su fekkee loolu da leen di métti ba xam na tey jii ñuy mën a dugg ci ay tooño kii nañ ko dem kalaamee yàlla ndax loolu mbiru suñu borom la li Sénégalais yi feeñal tey mooy un pays avec un président de la République et le peuple donne beaucoup plus une attention particulière à un opposant donc day feeñal ni li ñuy yàgg a wax te président ko yàgg ko mooy Macky Sall il est minoritaire dans ce pays en réalité ilo est minoritaire ndax yii feeñal na ko mooy Macky Sall c'est un monsieur qui fini dans ce pays en réalité il est fini dans ce pays ndax lii feeñal na ko donc ñuy sant askanu Sénégal bu baax a baax ci ni nga xam ne noonu la ñu déggee woote googu nga xam ne président sun ko def na ko démb ñu suivre ko xëy vaquer à leurs occupations tranquillement jàmm ak salaam ñoom ñu jël takk der gu dul jeex yàq carburant yàq leneen ak leneen ak leneen mobiliser ay askan ay ay forces de l'ordre yoo xam te ni tey jii am na ci Sénégal benn poñ wala benn gox boo xamante ni xëy na am na lu ñu fay teg doomu sénégalais ci fitna te takk der yi waroon fa nekk nekk ñu fa tey ñu Macky Sall tey diggante cité kër góor gi ba jëm tribunal la mu ci dugal ci takk der ak dispositif yi kenn mu si ko waaye nag ñoom dañoo tiit ndax ànduñu ak dëgg ñun suñu xel dafa dal ndax dañoo ànd ak dëgg te ànd ku ànd ak dëgg ànd ak yàlla te ku ànd ak yàlla dangay ngay dal beneen affaire comme ni ko xale di waxee ci réseaux sociaux yi de l' affaire Sweet Beauté à l' de Tcheki. Mhm. Euh, moom moo indi arrestation wu garde rapproché wu président Ousmane Sonko notamment cinq cinq yi ñu cité depuis depuis mhm. euh, ban jàngat nga am ci affaire boobu ñuy soog a mhm. ak ni ñu leen jëlee yóbbu leen au niveau de Mbour ou bien yan information de dernière minute yoo waaw xam nga euh, <clears throat> le président Ousmane Sonko daf ko wax démb nee na ñoom seen mbébét mooy dossier bii maanaam. nga nga tourner ko dans tous les sens amul fenn fuñ ci mën a amee ndam te xam naa fekk ay jamono wala fii ay waxtu la dox ci diggante audition bi xëy na ñi ci war a wax dinañ ci wax askanu Sénégal dinañ gën a comprendre que ni lii nii as complot gu ñu teg pour jër ab gor bëgg salteel deram tilimal dërëm ba yoon gi mu nekk ci yoonu politique am ñu seet nuñ ko faagaagale loolu dong la léegi nag kom xam nañ ni lañ doon yaakaar ci dossier bi ndax nañ ko perdre mois de mars mooy askanu Sénégal ñoo génn bañ ne li Macky sàll bëgg def Ousmane Sonko ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg moo tax fi mu toll nii ni ñuy def mooy li ñuy ut tuddee naan créer une affaire dans l' affaire finalement fan lañ atterri ci affaire u Cekki Cekki la fa xew dimanche ñëpp gis nañ ko man mii di wax ak yéen maa ngi woon Cekki ay nit yu ñu préparé yabal leen ne leen dem leen ngeen saaga wax leen lu ñaaw su ko defee ñu dàq ji leen bu ñoom bu ñuy génn ñu jël leen sànni leen ay xeer filmer ko ne Ousmane ko dafa dugg ca village u Cekki ñu dàq ko loolu moo nekkoon seen jubluwaay dimanche waaye nag comme na mu ko waxee ñun duñu tooñ waaye ñàkkuñu fayda itam ba nit bëgg fekk ñuy dox suñu farataak suñu yitte mu bëgguñu ko empêcher loolu duñ ko mës a nangu donc waa dëkk ba seen jëmmi bopp gis nga Euh, kii nii ñuy wax naan euh, Fatou Ndion fereeram ki nga xam ni rakk la ci ki ñu dóor noonu kooku magam moo ñëw ba ci ñun ci dimanche boobu nañu kii sama raq la moom moo leen tooñ te ñun duñu ànd ak tooñkat waa dëkk boobu seen jëmmi bopp ñoo génn nañu ñii ay nitu fitna lañ ndax une semaine ngi nii ñu ngi waajal lii nga xam ni loolu lañu def tey donc la xew ca Tchéquie ak caaxaan la ñu bëgg a kerewaat waaye nag encore une fois ñun ñooy dëkk di am ndam ci seen kaw te incha allah rabbi ñun itam dinañ continuer amaat ndaw seen kaw ci lii nii nga xam ni maanaam diversion la wala ut fu ñu mën a jafandu créer ay dossier dossier yu dul jeex pour seet fu ñu mën a jaar ngir am li ñu bëgg te soobee yàlla duñ ko am encore une fois ni ma ko waxee. nemmeeku bi day continuer xam nga. nemmeeku gis nga lii nii yëpp ndax dafa am koo xamante ni président Sonko daf ko wax Macky Sall li mu gën a bañ tant que yaa ngi Ndakaaru Njaay di dem ci télé ak rajo yi di conférence de presse yi moom amul lu ko tiital mais bis boo génnee wax ak askanu Sénégal ndax ku deful lu jub doo nangu nit ñi dem wax ak nit ñi su fekkoon ni liggéey na réew mi ci liggéey boo mucc ay ba sénégalais yi nekkuñu ci fitna ci jafe-jafe tey jii. bépp opposant bu jug war a dem ak wax ak askan wi moom Macky Sall day tëdd këram dalal xelam parce que danaan liggéey naa ci réew mi loo xamante ni opposant bu mënti dem wax ak askanu Sénégal duñ la faale waaye nag gannaaw ba dañ ko jox fukki at ak euh, fukki at yoo xamante ni dañ la dénk nguur jox la lu toll ci quarante mille milliards de budget amul lenn loo soppi ci dund askanu Sénégal ñi ci Ndakaaru ñi ci ñi ci taax yeeg ak ñi ci ñi ci kaw gi ñëpp a sonn moo tax doon nangu kenn ku nekk jug dem wax askan wi ngir nemmeekook ñoom xool seen jafe-jafe wax leen sa gis-gis loolu président Ousmane Sonko commencé ci nemmeeku tuur bi ànd nañ ko ak yow ànd nañ ko ak amul benn gox bu mu dugg te waa dëkk ba génnuñu teeru ko teral ko waxtaan ak moom dalal xelam ñaanal ko yàlla loolu nag day ñaga seen xol waaye nag ñu leen wax naan su yaboo urgence carme du peuple mu bëgg ko looloo am mu bañ ko looloo am ndax li ko métti moom mooy fardeau peuple bi la moom Ousmane Sonko homme du peuple la mais Macky Sall c'est le fardeau du peuple actuellement loolu nag neexul ci xolam waaye nag su ko méttee nag kalaame yàlla mënuñu ci dara. jërëjëf euh, Ousseynou Ly. Mhm. bëgg naa laaj benn question. gars yi dañ leen doon ci dañ leen mhm. mhm. bi gars yi ñuy def constat ne da ngeen di plainte pourquoi du ngeen plainte donte dañ leen xam naa loolu moom gars yi avocats yi après dinañ ci ñëw de plus en parce que bëgguma ci sori ndax dafa am loo